kuy def buzz man ma am tour Sénégal avocat international député du peuple l'homme de Kouthia et d'autres kooku lu muy def buzz chaque jour Kouthia buzz ko am na ñoo xam ne Kouthia du leen tudd parce que xamuñu naan c'est illustre inconnu kon ku wee buzz ay cuure yu xamul dara kenn du leen tudd ñuy dee ñu naan day buzz fexeel ba buzz man may buzz man li ciy des mooy mais dama dama sonn. barki démb moo njaay rek heure bii maa ngi Macky Sall ñoo toog barkaat démb encore ak Sali barkaat démb ñoo